yéen ñiy safoo di déglu ak di topp 5 TV maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak ñun daleen ak jàmm ci li gën a fës ci xibaar yi dañu koy door ak jàngoro yi tuberculose fii ci réew ma Sénégal mu mel ni nag du mbasum Covid 19 bi rek moo fi nekk di faat ay bakkan ndax yeneen i feebar yu si mel ni paludisme ak tuberculose ñoo ngi faat bu baax baax fii ci réew mi ci loo xam ni nag kenn yëgu ko ndax kilifa yi bàyyiwuñu xel bu baax a baax ñi nga xam ni ñoom ñooy sooxaale ak feebar yu ni mel ndax ci 2020 bi lu ñetti téeméer ak ñaar fukki doomu aadama tuberculose bi faat na leen si jamono boo xam ne pexe yépp rek si jële fi li nga xam ni moo di mbasum Covid 19 bi la ñu ko daal di yóbbu jëwriñ bi nga xam ni moo gàlloo wàll ko wér gi yaram di Abdoulaye Diouf Sarr rafetlu na nag taxawaayu état bi ci feebaru tuberculose rawatina nag faj mi nga xam ni kenn du ca fay dara waaye nag moo ngi wootee ngir rek ñu gën a jooyanti yeneen wàll yi nga xam ni ñoom ñoo ci des docteur Euh, ministère de la santé euh, jàpp na ni rek xeex bi euh, dañu cee war a dugal ministère de la jeunesse ministère de l' éducation ak bu forces armées ngir rek ñu daal di fi jëlee li nga xam ni moo di feebaru tuberculose fii ci réewum Sénégal fii ak atub 2035 ngir mu daal di fiy jeex tàkk ñu woyal àddu si coowal Fallou Sène di étudiant bi nga xam ni dañu ko boomoon ca jàmmaarloo yu metti yi nga xam ni amoon na ci diggante way takk der yeek ndongo ya nga xam ni ñooy jàngee ca université Gaston xewoon nag fukki fan ak juróom ci weeru mai atub 2018 dëglu bi nga xam ne nag moom la ñu waroon a dëglu juróom-ñeenti étudiant yi nga xam ne ñoo fekkee woon jéeya boobule juge Samba Sall rek da ko dàqandi ba beneen jëmmi jamono mu mel ni lu ëpp ñaari at a ngi gannaaw xew-xew boobu coowal Fallou Sène ba tey rek dara leeragu ca waaye nag am na benn gendarmerie boo xam ni rek moom la ñu ca joxoñoon baaraam ba tax rek jamono ji ñu ngi ko placé sous contrôle judiciaire bu tribunal ba nga xam ne moo nekkee ca Kaolack nga xam ne nag àtte nañu fa rek mbirum faat bakkan bi nga xam ni xewoon na fukki at ci ginnaaw di faatu bi nga xam ni faatoon nañu ko Pape Mbaye Samb ki ñu si joxoñoon baaraam nag di benn militaire buy wuyoo ci turu Abdourahmane Dieng dëggal nañu rek ni li ñu koy toppee moom moo ko defee mooy rek daa faat xaritam boobu ba noppi daal di koy daggate ba tax nag ñu dal di koy tëcc giiru dundam ñu jàll ci député euh, bi di Cheikh Bamba Dièye Mbacke Baara Dolli euh, bu bokk gis-gis te mooy rek bu njiitu réew mi jógee ci euh, bopp réew mi ci atum 2024 ki nga xam ni moom moo ko fi wuutu bañ koo toppee ci dara moom mi fi nekkoon nag maire bu Saint-Louis ne rek li nga xam ni moom la dolli di sàkku amul njariñ bu dee rek njiitu réew mi jaarale na ci yoon euh, ni nga xam ni noonee lay yoree réew mi ba tey rek xamle na ni ñetteelu ko mandat du yoon te bañ koo amal du faveur boo xam ni dañu koo defal sénégalais yi ñu wëyal ba tey ak jàmmaarloo yi nga xam ni moo ngay xewee foofee rek ca daara ju kawe ja di université Cheikh ante Diop bu Ndakaaru ci diggante way takk der yi ak jang yi bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xam ni jot nañu ko ndongo ya ñooy sàkku rek ngir ñu bàyyi seen uh, morom yi nga xam ni tegoon nañu leen uh, loxo ci jamonoy manifestation yi fii amoon kon mbokk internautes yi xibaar yi buur na ma jox leen dig daje ëllëg incha allah waaye laata boobu wéyal leen di abonné ci 5TV te bu leen fàttee ba suñu cloche de notification bi ndax ngeen di jot suñu vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëf